ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média yegg si ak yéen ci seen émission xalaas mu di suñu journal fait divers euh, situation oblige xam na tey man may toog ci studio bi ñu des ñëpp dañuy jokkoo ak ñoom ci téléphone bi Mamadou Ndoye Bane moom yaa ko njëkkee Bane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar sama waa ji. ay la nga nuyoo ko xam naa xalaas tey moom. waaw mais mais maa ngi nuyu ñëpp rek di bëggee ñëpp di la ñaanal jàmm di ko waa réew mi waaw El Hadj Assane nag ñu ngi ñuy won ni mooy directeur kër gi waaw sunu heure bi moo ko jël. Euh, déet waay noonu xam nga tolluwaay gi la rek. xam nga ne tolluwaay gi la rek ndax fi mu nekk nii. bàyyil ma attaqué ko rek ma déglu. di waay déet waay baan. ginnaaw ñëwuma tey ñëwuma. wuy ma. waaw. lu ñuy dooree gaaw. waaw euh, euh, euh, kii ma ginnaaw bi bi ñu nuyoo ñëpp xam nga démb am na lu ñu songoon mais xam naa dañ koy écho ba suba. ëpp naa wax auditeur yaa ngi koy xaar. non nañ ko écho xam nga lu tax. lu tax. feebar bi nga xam ne moo lëmbee àdduna bi. muy coronavirus bi. ba léegi dégg goo ci benn Séné sénégalais bu ci faatu. de dégg gu ma ko ci de. waaw léegi nag man nag dama leen indil ko ci faatu koo xam ne ab sénégalais la. ëpp naa wax bu am bu am vingt neuf ans. faatoo ca France euh, moom su fekkee élément bi yem na. mën nga taxawal baan nga ne. waaw koo xam ne bu jigéen. waaw boo xam ne France la nekkoon. waaw coronavirus bi da koo dal. waaw yàlla def mu faatu ci. mi ngi tudd Marie Rose Yanga mi ngi juddu lu 12 décembre 1991 papa mi ngi tudd Malan Yanga yaayam tudd Madeleine ban loolu yéeme na de. denc nañ ko démb ci quinze heures ca France. yi ko yëgee jokkoon nañu ak yaayam posé ko ay question mu tontu ñu wax ñu affaire bi ni mu ko dalee ba ni mu faatu. yaay ji wax na. waaw déglu ko. benn nakkar bu ma am nakkar bu diis a diis a diis laa bëgg a partagé sama mbokku sénégalais yépp ndax sénégal laay juddoo sénégal laay yaroo yaroo biiru ñaacokeer sama doom moo faatu lundi matin sama doom aide la mi ngi am vingt neuf ba pare miy def éducatrice éducatrice spécialisée waaw am na diplôme aide-soignante am lépp vingt neuf la am léegi comme bi ñu waxee affaire confinement bi mu ne moom day ñëw euh, seetsi ma pendant trois semaines mu ngi ñëw mu àndaale sama sët mooy doomu rakk ci bu mu ñëwee dimanche moom moom ma yóbbu wax otom ñi dem voté lundi mu xëy fompal ma kër gi yëpp menacel ma kër gi yëpp mardi man ah, moom ñoo toog comme dafa bëgg ay crêpes ma defal ko ay crêpes nga suur na si ëllëg sa mercredi ma toggal ko pâtes ak brocoli ak crevette xale bi lekkul sama xel bi commencé ñaaw mu ne bii dem day daw noonu laa toogee mu ne ko maaxàllaa boo demee fee sa kër kii kër Thérèse boo jógee foofu ngay lekk ay KFC te nga xam ne lekk yi bon yi léegi ak kii bi ma ko du ko nee jógal sangu mu bëgg pour jóg dem sangu mu delluwaat tëddaat si lal bi loolu baan noonu laa jógee ma dem sama néeg bi ma demee sama néeg ma tëdd si lal bi sama xel ñaaw ma dem tëdd si canapé bi ma dégg ko muy fupp sama xel ñaaw ma ne ko comme dafa amoon problème kër y a deux ans de ça ma xam ne loolu la bi ma wooyee pompier yi pompier yi bi ñu ñëwee bi pompier yi ñëwee ñu jël pou bi pou bi demul boobu ñu wax ñi ne jël leen ko ngeen def ko si kaw canapé bi rakk moo ko jël ak ñaari loxo teg ko si canapé bi bu mu ko fee si canapé boobu sama doom dem na ndeysaan bu xam naa dem na bi ñu ko yóbbu hôpital la seen hôpital Lassène noonu lañ ko transféré hôpital bu mag bi ñuy wax Timon ay quatre heures sama doom woo ma ne ma maman dañ ma drainé mais tout va bien mu yónnee ma vidéo bi message yi wax ak man yëpp message yaa ngi fi mu yónnee ma vidéo bi yónnee ma message yi yónnee ma lépp <laughs> ba feebar bi ku ko am bu mu rus bi lay metti na ay waaye ay waay lii bu mu dal doomu Sénégal fee Sénégal koo xam ne boo dee deux heures temps bu weesoo rek di nga contaminé ñëpp noonu lañ lay jël dugal la si mbuus dugal la ci seen nu mu gën ñu gaañu leen di ñu suul ko jeudi mu gën a gaawee te suul bi sax dañuy continuer tuy dem li kenn mënu ko nëbba ndax góor du nëbba lii ku ko am waroo ko nëbba lii metti na ba jéggi dara sama morom yaa ngi fii yëpp man maa wax ñëpp ñëpp bëgg a ñëw man maa leen ne bu kenn ñëw benn Marie Rose bu dem si doomu sénégalais doy baan ñaa cokkeer laa juddoo ñaa cokkeer laa yaroo catholique laa waaye li ma xam si prière musulman bari na yàlla moo ma ko joxoon bu mu koy jox yëgu ma bu mu koy jël tam yëgu ma ay waaye feebar bi yàlla na ump Sénégalais yi. mar rusuma di wax. mar dem na. xale bu bugg waajuram xale bi ma bëgg xale bu bugg ma solo li ma metti mooy amul jëkkër amul doom mais moo ko dogalee noonu munuma si dara munuma si dara xam naa dee bi si la yem laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah ay waay dem na Marros dem na maa ngi leen di jaay jëfaral Mohamed Ndiaye jërëjëf. ban. waaw. léegi day laam-laame moom amatu ci. waaw xam nga ñun moom na leer rek xibaar yu wér te wóor moom aide soignante la woon vingt neuf la amoon mu ngi judd le douze décembre quatre vingt onze wax naa la yaayam papa mi ngi tudd Maala Yanga yaayam tudd Madeleine moom ci tudd mi ngi tudd Marie Rose Yanga. dëjël nañ ñu ngi ko doon dëjël fii ci Kër Massar démb démb lañ ko denc ay 15 léegi liñ ci mën a jàpp mooy benn doomu Sénégal la bu nekkoon France. waaw aide soignante la. waaw. yàlla def mu am coronavirus. waaw. ñu koy faj mu far ca faatu. mu yaay ji dégg li mu wax nee na. yàlla bu jàngoro ji yegg si fii. waaw loolu euh, maa ngi lay gërëm bu baax a baax Mamadou Ndoye Bane dommage que allo présidence mi ngi taxaw. waaw mais bëggoon naa ñu gën ci yaatal waaye suba moom euh, altine moom maa la ko dikk. waaw mais mais ma laaj bi bi fu ma newoon. waxtu wee jot moo tax est-ce que doo ko vocal. non wax bàyyil ma wax ko rek. déet vocal ma ko rek baan. ngaay bàyyi li ngay def waaye déet baan vocal ma ko rek allo président. waaye ñuy na ko yàlla xaare. amiin waaye tey jii ñaan ci sénégalais yi aussi ñu jànge ci. ñu maire bi wax waxul pour siiwal deewuk doomam de dafa wax pour bëgg ñu bañ a caaxaane coronavirus bi. c'est yow tu yow tamit. jërëjëf <laughs> jërëjëf Ban.

kooku salaamaaleykum korom korom naa bi ngi bëgg a ëpp loxo de ndax Japon Siin. salaamaaleykum Espagne France France euh, Allemagne yëpp ndekete junni junni junni junni junni nit ñoo fa loolu ah lii nag dootul caaxaan. lii moom dootul ay caaxaan lii moom wax dëgg yàlla ko yóbbu jóg ci matukaay. waaye Sénégal maa ngi leen dégg ñu naan nan raxas loxo yi nan nan nan tëj yi nañ ubbi waaw raxas loxo yi day moo ne lislaam day moo ne njëkk a digal set. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam góor gi. allo. allo. allo góor gi ñu ngi la dégg. président. waaw. président. waaw maa ngi lay dégg. waaw kay waaw kay Sall gaar yi <laughs> xanaa da ngaa tukki woon. waaw dama tukki woon dama nekkoon ci utu ay matuwaay pour xeex li nga xam ne mooy feebar bi. da ngaa lan woon. uti woon ay matuwaay yi nga xam ne pour xeex feebar bi. dëkk mu ne damaa wuti woon ay matt matt da xanaa Mariam dafa yor ay mën maneen dafa yor ay mën <laughs> da ah, wax ay motuwaay yoo xam ne xaalis financement pour jéem a xeex li nga xam ne mooy coronavirus bi ay matu ba doon ay point ay karange ah waaw waaw waaw président waaw dafa am lu ma bëggoon a wax waaye ci yow la ñuy déglu ah? yow la ñuy déglu waaw waaw waaw président dama ni <laughs> Sall ngaa bi sa sa sa sa li nga jël wax dëgg yàlla wax ko président noonu lay def bu réew bu daa yëngu réew ma ni këlët këlët këlët këpp président da daa taxaw jël kàddu yëkkati kàddoom wax ko askan wi waaye lii nga wax ni nan fu fépp fu mbooloo di daje nan ko nan ko dindi fépp foo xam ne si nit mën na faa wàllante jàngoro ko tam naa virus di nan ko moytu def nga lu rafet def nga lu rëy te lii nga def nag histoire dana ko bind ndax corona euh, loyal la waaye bi ko yàlla wàcce yàlla dong nga ko fi mën a jële kon waaye léegi ñu ngi dëkk bi foo jàll eau de javel baa ngi mel ne tulleeg màll nit ñi sax soj nan ndax eau de javel bi euh, xel yaa ngi mel ne tulleeg màll kenn ku ne ngi daw koo jege boo tisoolee mu départ Italie nag moom boo fa jugee <laughs> Italie la <laughs> Italie day bu jëkk day bu jëkk day Italie koo ma faa moon <laughs> léegi day kenn gootu la dem Italie de góor gi yaa ngi saxat de dafa a leer a kenn boo ko wane Italie day mu mu tak mu mu laf mu eh, mu takkoo xelam. waaye maa ngi dégg yow yaa ngi saxat yow sa bopp da ngay saxat war na nga reetaan. da ngay saxat war na nga reetaan. da ngay. yow yaay saxat war na nga reetaan. yaa ngi saxat yow. saxatuma maa ngi damay wax damay reetaan. <laughs> saxate lan yàlla teel yow doo ma yéeneen ko dama doon laaj ma gis saxat bi xawoon mu roog reetaan